E liifantu bi muy ijji ci seen programme bi ñuy tuddee rattilil qur'aana ma'i ñëw leen ñu àndandoo jàng alquran njàngin mu wér mu mucc ayib balaa booba nag day laaj ñu am fondement bu dëgër bu baax te mooy ijji bi kon ci étape bu njëkk bi xaaj bu njëkk bi liifantu bi ijji bi ci lañ nekk nii kon ñi ngi ci deuxième leçon bi muy araf yi nga xam ni dañ koy boole pour mu nekk baat moo xam ñaari araf la ñett ñeent euh, ñi ngi ci septième leçon bi maanaam deuxième leçon bi dañ koy xaaj moom it ci xaaj xaajaat yooyu lañ nekk kon ngeen bàyyi xel ci bind yi ko jiitu kon dañoo bëgg gis ngeen macha allah xaraf yi ñu serkele coloré ko lañ bëgg buñ ko dugalee ci yeneeni araf mu nekk baat ngeen xàmmee ko gis ngeen bindin yi ni ñuy wuute loolu dee leen ci bàyyi xel bindin yu wuute yi te niñ koy jànge niñ koy waxee benn lay doon ngeen di góor-góorlu xaraf yi di set surtout lu mel ni ayn wala xoyin yu demee noonu kon siin shiin gis ngeen ñaar yooyu eh, bii daa am ñett tomb bi amul tomb lool rek moo leen wuutale waaye ñoo bokk nuñ koy binde tomb yi rek moo leen wuutale sood dood moom it leen wuutale mooy tomb bi bii daa am tomb bi amul tomb too leen wuutale moom mooy tomb bi rek bii daa am tomb bi amul tomb nga ñëwaat ci beneen bi ayn ghayn hmm? foofu ngeen bàyyi ci xel dafay mel ni aynun aynun ghaynun waaye niñ koy jànge te ayn ghayn ngeen bàyyi ci xel moom gis nga niñ koy binde ñoo ko bokk leen wuutale mooy bii daa am tomb bi amul tomb mu ngoog hamza Hamza itam dana ñëw moom kese nii mu mel nii waaye dana ñëw te da ngeen ko gis ci bind bi ñu aj ko ci kaw alif wala ñu aj ko ci kaw waaw wala ñu aj ko ci kaw yaa bu boobaa Hamza rek nga koy jànge loolu na ngeen ci bàyyi xel faa oof waaw aywa miim miim gis nga ñaari miim yii niñ ko binde moo wuute waaye benn la bu ko defee na nga xàmmee miim bu melee nii bu melee ni ak bu melee ne leen yépp nga xam ne miim la mu ngoog waaw mu ngoog waaw da fexe daal sàmba moom nga xam ne sàmba la su solee mbubb mu weex nga xam ne sàmba la bu solee mbubb mu xonq nga xam ne sàmba la bu solee mbubb mu vert nga xam ne sàmba la fexeel daal ba xàmmee sàmba xaraf yi tamit noonu la mel xaraf bu ne dafa am nu mu tudd am nu mu mel mbubb mu mën a sol bu mu la jaaxal xamal fexel daal kii daal miim la tey daa sol mbubb mu mel nii rek waaye miim bi ma jàngoon daal moo nekk nii noonu ngeen di def ngeen xàmmee ko bu baax aywa kon déglu leen ma bu baax te xool bind bi aywa siin shiin siin laam shiin laam laam shiin yaa siin raa sood dood too woo sood baa baa dood alif ظا ألف عين غين همزة عين زاي غين را صاد عين صاد عين ما وخاتكو صاد عين ضاد غين ما وخاتكو ضاد غين أها با عين دال تا غين ذال همزة همزة hamza mu ngoog comme li ma leen waxoon sànq hamza bi dana ñëw moom kese dana ñëw ñu teg ko ci kaw alif wala ñu teg ko ci kaw waaw wala ñu teg ko ci kaw yaa moo nekk nii ngeen xàmmee ko bu baax faa qoof qaaf waaw faa waaw faa qaaf laam qaaf faa laam waxaat ko qaaf faa laam yaa yaa qoof miim miim xaamiim laamiim taamiim miim haamiim sin mim alif nun mim alif ta mim ta mhm. kon mu nilan ni lañ koy jànge aywa kon fi yen ñep do nga yi góor yi ak donga yu jigéen ñi wax len ci kaw nak ma bu baax ci kaw sin shin aywa sin lam shin siin laam shiin laam laam shiin sad siin aywa dha ضاد ci kaw sad ba ta ba ضاد ألف ظاء ألف عين غين همزة عين زاي غين راء صاد عين ضاد غين باء عين دال تاء غين ذال همزة همزة همزة فاء قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا يا قاف ميم ميم حا ميم لام ميم تاء ميم ميم ها ميم سين ميم ألف نون ميم ألف تاء ميم تاء ما شاء الله ما شاء الله ممتاز نيلة أيوة كن nag tari jot na ji moom xàmmee rek tari waaw ku mën a mokkal ba doo ko xool it baax na waaye daal mokkal gi daal mooy xàmmee ba nga xam ne xaraf bu ne daal fu ñu ko bind wala foo gis ñu bind baat nga mën koo liir nga mën koo ijji mën koo boole mën koo jàng wala nga dem ba nga xam ne sax boo ñëwee doo ijji da ngay ñëw rek daal di wax mu dem aywa kon fii moom ban dongo bu góor mooy yëkkati loxoom kan ci yéen moodu xulle aywa modu xulle waxal ci kaw ma deg kon da fi sax da ngay xaar bu bama ni la baat bi lan la bo ñu def ci ben cercle rek wala ma joxoñ rek dadil wah, wax aywa ah, bi lan la sadba aha bi nak Lam Shin Ya Aha Binak Dod Ghain Aha Baya gumalada Binak Ain Zai Aha أيوة bii nag waaw bii ñu jël hamza bi teg ci kaw nuñ koy jànge همزة أها بينك يا فا أها يعني تي دست دغلو لين تا خول بو باخ لمي واخ با خام أها بينك لا ميم أها بينك قاف فا لام أها ما شاء الله مدخله macha allah ah kan ci jigéen ñi nag ah kan mooy yëkkati loxoom soxna Kiné Jéey soxna Kiné Jéey dégg nga ni Modou Khoule jànge léegi macha allah waxal ci kaw mu ci kaw nag ngay wax aywa euh, bii lan la. را ب سين لام bii nag. ضاد ألف. bii nag. صاد عين. ايوه bii لا سين ميم ألف. اها bii nag qoof faa hmm. laam hmm. bii nag taa miim hmm. waaw yaa bii nag yaa bin jël xamsa bi teg ci kawam moom nuñ koy jànge bii yaa bin jël teg xamsa bi ci kawam nan la xamsa bàyyeeguma la de bii nag taa xoyn ma macha allah ah daa mel ni yaa gën a aay Modou Khoule de ah macha allah mumtaz comme nii la ah mokk na ndax mokkal gi mooy xàmmee rek xaraf yi seet na te tabaarakallah macha allah mumtaz kon nag daal leen di jël seen kaye ak seen big <coughs> seen xalima seen daa seen aliwa wala kere ardoise kenn ku ne li jàppandi ci yow rek ngeen bindal ma ko mbind mu rafet comme ni ngeen ko gisee nii gis ngeen mbind mi ni mu rafete mbind mu dijj mu rëy ma xool kan moo ci dàq bind waaw ko defee danaa xam ki dàq jàng dàq mokkal waaye xam ki dàq bind bu ko defee ba ñuy neexal moom mooy jël neexal bi macha allah kon mu ngi nii leçon bi yépp bind bi yépp ngeen di bind ngeen boole mën a jàng mën a bind bu ko defee ngeen daal di raw seenu maas tabaarakallah kon mu ngi nii lii mooy suñu bind bi fii la ñuy yem ak yéen leçon 7 ci xuruful hijaa yi murakkabatan muy arafi ñuy boole ba mu nekk baat kon defe naa ni dërs boobu muy leçon 2 xuruful hijaa yi murakkabatan fii la yem lii mooy leçon bu mujj bi kon bii di ñëw ñu jàll nag ci beneen beneen étape macha allah kon ki ci àndoon nag yeen fii ci daara ji baytul quran ci seen programme murattilul qur'ana ma'i di seen mbokkum daara sëriñ Mor Sarr subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk